رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله الله حسبي لديني حسبي الله لما إليه اهتمامي حسبي الله لكل باغ علينا دائما أبدا kadaali man yaxsuduni xasbi waaw wàllu waañ wi xam nga euh, day wax ne liggéey dafa am lu muy laaj dafa am teele am teewe am tengal euh, booy liggéey da ngay teel a jóg booy liggéey lu yow mi kilifa da ngay teew waaye kuy liggéey dafa war a mos dara ci biiram parce bi mu tolluwul nii yàlla dogal na waa ñu soxna uma xayri si ñoo daan togg di ñu jox ah booba parce euh, que tolluwul nii ci ampleur ndax booba mouvement la boo xam ne ci 1968 bi ci sëñ Babacar joxee ndigal ci illa yi booba grève étudiant yi am amuñoon assez de policiers yu mën a couvrir gàmm gi sëriñ Babacar ne sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane militaire li ñuy def der gi moo leen wuutale ak war ngeen koo jéem man ko ñu former ci daara ji soixante et personnes moo jur Coskas 1989 nag ci lañ ko validé mu tombeek reñ ji di cinquante ans muy dem nag ba Coskas yegg ci dimension foo xam ne ma booy wax six mille personnes nga xam ne ëpp na ko nit nak bu tolloo fofu ñuy yor liggéey bu sensible day ni il faut ñuy ñuy lek fi nga gis fi moy base bi ñu wara a ñam yi bu joté dañ koy top commission par commission commission bu nek e, bo xolé asset yi bool yu ndaw la yoom ay kubéer bool bu ne dañ koy dibb 5 personnes a koy bokk ñu tek ci seen kudd ndax pour moi bi ñuy liggéey duñu mën a takk te il ñu wut loo xam ne bu ñuy paree bu ñuy yeesalee rek bara mën a nekk au service ah mboolem commission bu ne ci COSCAS nag à part yi nga xam ne xëy na ñoo nekk ci biir kër sëriñ yi te lañu soxla wax dëgg yàlla kilifa yaa ngi leen koy jox ñooñu rek ñoo leen di yóbbul añ mais commission yi ci des yëpp dañ leen di yóbbul añ waaw am na budget boo xam ne COSCAS moo koy togg Ousseyn dana togg candidat bu am solo bu toggee andi am na ay bon volonté yoo xam ne ñu ngi ci dëkk bi xëy na du ñu mën a tudd tur yëpp bon volonté yooyu dañuy togg bu ñu toggee ñëw andil ko ñu séddale ko ñu bare bari ay daayira yu bëree bari ay daayira ay individuel ay mbokki taalibe ñoom dañuy togg ñam yu bëree bari buñ ko toggee bu dee fukki mana a ñu juróom yi ñoom ñu séddale ko ci xurumu jàkk ji ndax yeggale seen yéene mais jël li ci des ñëw jox ko koskaas nañu kat jël leen lii ngeen seddale ko dolli ko ci li koskaas togg mais koskaas dana joxe budget ndax koskaas togg añam mu ngi tàmbalee démb ci burdu bi démb togg na añ yu bare bari togg na reer

waaye nag mbokki taalibe yi ñu ngi ciy dugal seen loxo di ci wut yàlla waa waaye bu ñuy séddal aju Paskas misaal tey pour mu restreint bu dee cinquante man li fi ñëw yëpp ñu war ko séddale dañu am benn quantité bu toll ci vingt man yoo xam ne dañ koy teg pour yi romb ndax du ñëpp ñoo dal du ñëpp ñoo am fu ñuy lekke am xam ne amuñu dal dañuy ñëw rek pour. yendu ci dëkk bi ñaan ah, bu ñu ñëwee fekk nit ñi añ ñu yàlla may ma añ am na ñoo xam ne am nañu dal waaye mën nañu euh, romb ñu xemmeem li Coskas di séddale ñu ne ah kon de xaaral ma jàdd fii añ door a dem wala nga ñëw fi nga wàcc jege jumaa ji te mu sore sa dal te wóor na balaa ngaa yegg mu guddi nga ne xaaral ma añ ci dalu Coskas wala nga xëy ñëw di ziar wala añi gis añ bi am solo nga ne ah man da bayima ma fi agn bi bii nangam loolu nag COSCAS organiser ko ba nga xamne ne pèlerin bu bëgg agn priorité bi COSCAS am ci repas bi dañ wax sax ci bu ko parce que bu ñak do ñak pour COSCAS mo wara a waye yalla lañ defal sutura alhamdullilah li ñi togg mom ñepp xagn na ci ah, léeg de nga dem ba am daanaka 25 cinq mala te doo xam sax fu mu jaar do xam sax fu mu jaar dëgg yàlla ndax lépp rek ngir yàlla ak mbokk yi rek seen bëgg-bëgg ak ak bëgg bëgg xadara ak bëgg yonent bi nag bëgg yonent bi tax na nit ñi moom dañu sax xel ba mu ëpp léeg-léeg ba démb añ bi mujjee ñoom bari na sax benn bool boo xam ne fu la mujjee fanaan parce que li waroon togg bariwul woon ndax commission bi fi ne woon bariwul mais li fi ñëw ci ay ndimbal ak ay teraanga jóge ci ay nit moo xaw a takku waaye dellu santaat yàlla bu baax daal xam ne bu manqué woon it du baax waaye bu bu ëppee alhamdulilah. salaamu alayka ya rasulallah assalaamu alayka ya habibi ya nabi allah ya rasulallah